mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ak ci ndigalu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké xalifa Serigne Abdoul Khadir Mbacké Khadimu Rasul ak mboolem njabootug Serigne Abdoul Khadir Mbacké ci kilifteefu Serigne Cheikh Abdou Mbacké xalifa Serigne Modou Abdoul Khadir Mbacké Serigne Abo Modou Abdoul Khadir Mbacké moo am mbégte di fàttali di yëgle ak di woote màggalug maamam Serigne Abdoul Khadir Mbacké Khadimu Rasul gi muy amal at mu nekk ca këram Touba Soura jàkkaarloog Serigne Modou Abdoul Khadir Mbacké Mbacke di ci fàttali koo ko ñaanal waajuram premier xalifa Serigne Abdou Khader Mbacke di Serigne Modou Abdoul Khader Mbacke ren mu koy amal talaata juróom-ñeenti fan ci weeru juillet 2024 muy ñaan ci kuréelu xasida yi daara alxuraan yi jumaa yi yi ak daayira yi lu nu mën ci jàng alxuraanul karim ak xasida ñu def ko addiye borom bés bi Serigne Abdou Khader Mbacke ak taawam ba Serigne Modou Abdoul Khader Mbacke bés bi di bésub njëgal bésub pajum aajo bésub nangu ñaan Serigne Abo Modou Abdoul mbooleem jullit yi mbooleem taalibe yi mbooleem daayira yi rawatina mbokki Tayba daqaar yi ak waa kër ma Massamba Diop Sam di ko yëgal mbooleem ñi mu bokkal Serigne Touba xarit yi soppe yi ak wëllëre yi programme bi njàngum alxuraan njàngum xasida ak i bernde bés ba ngoog màggaluk Serigne Abdoul Khader Mbacke gi Serigne Abo Modou Abdoul Khader Mbacke woote ca këram Touba Soura di ci fàttali ko ko ñaanal waajuram Serigne Modou Abdoul Khader Mbacke talaata juróom ñeenti fan ci weeru juillet 2024 muy ñaan ci yàlla ci barke maamam borom bés bi di Serigne Abdoul xadr Mbàkke ibnu Cheikhul Xadim képp ku fa teew mu doon sag defaru tey ak ëllëg asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu